di nuyu mbokki taalibe yëpp tey jiital ci nuyo bi sunu kilifa di kilifa gi yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ngi koy jiital ci nuyo bi te di ko siyaare di jiital ci nu ci nuyo bi ak siyaar bi tey jaar ci nuyo biñ ko nuyo ak siyaar biñ ko siyaar mboolem këri diini yi nekk ci réew mi te di leen ndokkeel ci bis bi tey siyaare kilifa ak barab bi di sunu kilifa ñun ñëpp di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñi ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare te di ko ndokkeel ci bis bi moom it di fàttali war rek li waral bis bii mooy li ñu jóge mooy koor gi koor nag yàlla moo ko wàcce ci ñun comme ni nga ko waxee rek yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun lool loolu mooy aay bi waral ndigal lii waa koor nag daa am nuñ ko war a defe man lam yada xawla zuuri wal amali bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yatruka taamahu wa sharabahu kon day mel ni koor ngir ñu mën cee jëlee la'allakum tattaquun fuñ jaar jaar ko foofu kon yàlla na nu yàlla defal tawféex bañ defe ko ni ñu ko diggale dafay mel ne nag jaamu yàlla niñ ko waxe ci koor ba tey la laallakum tattaquuna bu demee ci tabaski yàlla day wax lan yanaala llaaha lahumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa kon nag taqwa mooy ragal yàlla day mel ne jëf yu bari kon ngir ñu mën cee jële taqwa taqwa mooy ragal yàlla nag ay daraja la yaa ayuha alladina amanu taqullah xaqa tuqaatihi ak fattaqullaha mastataatum kon xaqa tuqaatihi comme xaas la mooy dëgg-dëgg ragal yàlla am na ñu ko yàlla jagleel ah, waaye du wàllu ñëpp waaye nag ragal yàlla loo man mooy fattaqullaha mastataatum kone ne mën na ko kon daa demee ne loolu sëriñ Saliou Mbacké daana ko waxee noonu li ci des nag mooy xanaa buñ jógee ci koor gi ñu gën a góorgóorluwaat rek li ñu digle ci koor ak li waral koor ñu fexe ba mu nekk sunu doxin ak sunu jikko ci at bi yépp li ci des nag mbirum jamono rek la jamono mel na ne yëngu-yëngu yi bari na ci réew mi ak ci bitim réew fu ne mel na ne dara nga dara nga fa yëngu waaye nag ñu delluwaat rek ca sëriñ bi digle woon mooy nam ko waxe ñaari bayit yu tënk yi te lamboolu bare bare mooy tariqatul adabi rahmatu saxiir kal kal abi wal ummi wa tawqiirul kabir wa jaxlu mislika kanafsika sawa li wa ci xaaliqin alal arshi istawa loolu gàtt na waaye buñ ko dundee niñ ko war a dunde kër gi dana jag pénc bi dana jag quartier bi dana jag dëkk bi dana jag réew mi dana jag kon loolu moom li tàmbulee ci kër gi ba jaar ci quartier bi ba jaar ci pénc mi ba jaar ci réew mi ku ci nekk rek bu taxawee taxawaay bi mu war a taxaw kilifa def taxawaay bi mu war a taxaw ci njabootam kiñ yilifit def nam war a def kilifaam ki nga yamool ne sa moroom nga def ko ne sa bopp loolu gàtt na waaye lijjanti na àdduna jàpp naa ne kon loolu doy na sëkk yal na ci yàlla defal tawféex defal nu ci ndimbal bañ man di ko gën a jëfe waxtu wu nekk kon nag loolu moo doonoon dénkaane bi rek ñaan ñu yàgg koo fekke lool te yàgg koo teewee tey de te koy defe ni ko sunu borom digalee te jële ci lim ci digee mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min yi yàlla nañ ko jëlee ci lii jërë ngeen jëf ñëpp tàllal kon sëriñ bi ñaan نبالي ويبقاي وفوزي بلا بكوني قديما ثبات تبين نصيحته بسر والجار لي بدأ بخادم الرحمن ok ñu ngi lay ñaanal bu baax. arrête arrête arrête mu gaaw